Amadou Mame Diop Amadou Mame Diop Amadou Mame Diop Amadou Mame Diop Amadou Mame Diop Amadou Mame Diop Amadou Mame Diop Amadou Mame Diop Mame Diop Amadou Mame Diop Amadou ah. Mame Diop topp nañ taal Amadou Mame Diop Awoon Mame Diop Awoon Mame Diop Awoon Mame Diop Awoon Mame Diop Awoon Mame Diop Awoon Mame Diop Awoon Mame Diop Ousmane Diop awal Mame Diop awal Mame Diop awal Mame Diop awal Mame Diop awal Mame Diop Amadou Mame Diop Amadou Mame Diop Amadou Mame Diop Amadou Mame Diop Amadou Mame Diop Amadou Mame Diop Amadou Mame Diop Amadou Mame Diop Amadou Mame Diop Amadou Mame Diop Amadou Mame Diop Amadou Mame joxe na ndigal Farba Ngom joxe na nee na gars yi yëngatu joxe na ndigal gaayam yi ngeen seen ne ca kaw ndigalu Farba dinañ koy dégg prési euh, prési mel na ne Amadou Mame Diop mooy jël raw gàddu gi ñi ngi continuer li nga xam ne rek euh, euh, moom mooy wàññi gi ñi ngi continuer waññ gi Farba Ngom daal moo jékki-jékki rek xool ña ca kaw ñu ngeen di seen ne na leen na jóg compte bi jeex na ñu déglu xool euh, nombre bi ñaata la 83 voix pour Amadou Mame Diop le maire de Richard Toll également directeur de la SAPCO euh, moom moo am 83 voix euh, Benno Bokk Yaakaar yéen a ngi koy dégg prési prési gaa yaa ngi jibile gaa yaa ngi jibile mi ngi mel ni stade nag li moom nawetaan daal lañ ko daan gis waaye tey dañu koo gis fii ci assemblée nationale mu ngi mel ni ASC Lebougui bu seen euh, joueurs yi dugalee but nii lañu koy defee Euh, fii ñoo ko moom muy kàddu euh, ñi nga xam ne euh, colonel joxe naa instruction pour ñu yëg ci kaw ñi nga xam ne ñu ngi ca kaw daal di arrêté nee na ñu nekk ci kaw di yuuxu nañu arrêté Amadou Mame Diop a gagné avec 82 voix waaye di fàttali nag ñi nga xam ne ñoom ñooy yeewi askan wi ak wàllu ñoom dañoo boycotté wat bi wote benn abstention moo am maanaam kenn koo xam ne dugalul xob ci enveloppe ba ñett yes ñépp seenu këyit këyitu amadu Mame Diop la jël euh, daal di ko ciy dugal. mi ngi noonu amadu Mame Diop ngeen di seen. Amadou Mame Diop moom ngeen gis noonu mu sol veste bu gris bi c'est le euh, nouveau président de l'Assemblée nationale du Sénégal euh, ci euh, ñu déglu ñu déglu waaw. Amadou Mame Diop moom moo euh, gagné euh, ginnaaw bi nga xamee ne rek. Euh, article 10 règlement intérieur bi. Euh, kon nag Amadou Mame Diop moo ñëw toog fa nga xam ne Aïda Sow Diawara dafa la toogoon ndax euh, daldi nañu voté ba pare euh, moom lañu ñu tabb ma ngay jóg ma ngay félicité Amadou maam Diop ci ndam li nga xam ne daal na koy am tey jii ci yi Amadou Mame Diop mooy ñëw toog euh, ca fi nga xam ne Aïda Sow Diawara fa la toogoon ndax bu ñu falee ba mu am président rek rek euh, euh, day jaa di jóg fu mu ne nag yeneen vote yëpp moom moo koy teewee moom Amadou Mame Diop mi nga xam ne bokk na ci parti Benno Bokk Yaakaar parti APR waaye it nekk maire bu Richard Toll également ni ma leen ko waxee woon sànq nekk directeur bu SAPCO. moom nag euh, dafa nekk ab docteur waaye nekk tam ab pharmacien am na euh, pharmacie bu mag bu nekk foofule euh, ca Richard Toll Mamadou Lamine Diallo tekkee ngi noonu. Daouda Diallo waaw.